li xew nag lenn la agence générale du patrimoine bâti moom moo jël structure bi relogé ko ci beneen site loolu nag ñun fonctionnaire lañu fonctionnaires, nag nguur gi mooy tànn fooy liggéey suñ nit ñu woon sax dañuy dem ginnaaw Salémata dañuy dem fi ñu yóbbu nag ci biir Dakar la si cabri 10 jox nañ ñu bâtiment bu bees tàq am quatre niveaux ñaari aile jamono jii may wax ak yéen ñi ngi implanté nos divisions et nos bureaux et que ba fii may wax ak yow liggéey bi taxawul li tax INEA di dund du bâtiment li tax INEA di dund mooy nit ñi nga xam ni ñoo fa ne te ñi ngi sant yàlla yàlla may nañu wér bàyyi nañu suñu sago mooy profité di gërëm monsieur le ministre de l' nationale donc maa ngi gërëm ñëpp di yeesal confiance bi nga xam ne am nañ ko ci agent yi di leen xamal ni liy doxal INEAD du batiment li koy doxal mooy nit ñi fa ne xarañ am jom gëm seen réew di liggéey